bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boromam wane ci nañu war a nekkale nañu war a jaame suñu borom loolu nag dara des di ci loolu jiitu as wajhi la jublu jublu borom jublu ko suñu lépp wan gannaaw lu dul moom ba du àdduna te daay àdduna bañ saf nekk ci nag nekk ci ni mu gën a bi nekk ci ni mu li mu fi bàyyil kon lanu ci war a bàyyi rek moo di li mu fi bàyyil li mu fi bàyyil suñ lépp jëmane ko suñu waroom suñ lépp mu jëme ko nag ci sant sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko liggéey bi nag moo di nekkal ko ci lim lim lim bëgg moo di sax dàkk ci yaamu yàlla ci sunna bi sax dàkk ci yaamu yàlla ci joxe suñ lépp daray àdduna bañ noo saf loolu lim ñuy indil du ñu taal dara lu suñ boroom ak àllaaxira ka nu jëm du ñu taal àdduna du ñu taal suñ bopp du ñu taal àdduna waaye nag ni li tax suñu boroom tànn sëriñ bi mu nekk ci biir jaam ñi nekkal ko ci jëwoon jaam ñi nañ ko war a jaamoo loolu moo nu ci bàyyi loolu rek moo nu ci bàyyi kon nu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax nan góorgóorlu ci nan góor bu baax a baax ci nan mën a sant sëriñ bi ci nan ko mën nan ko mën a liggéeyee ci li ñu fi bàyyil muy sax dàkk ci jaamu yàlla rek ci suñ lépp nag na ko suñu borom diglee suñu kem kàttan na mu ko teree nu doo ko def suñu kem kàttan na suñu borom bëgg du ko bëgg suñu kem kàttan lam bañ du ko bañ suñu kem kàttan sax dàkk ci loolu loolu moom rek lañ mën a liggéeyal sëriñ bi mën ko mën a sant itam kon nañu góorgóorlu bu baax a baax dara waru fi ne waru fi bàyyi loolu loolu nag ci kattan suñu borom ak xereñam lu duñu yàqal dara lan war a am ci àdduna ci ci yiw du ñu xañ dara lan war a am ci yiw te loolu rekk nag itam mooy tax nu mën a sëñ seen sëriñ bi mooy tax nu mën a sax ci liggéeyal ko kon nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax sax dàkk ci li mu fi bàyyil man moom moo defar defal suñu lépp moo niy sàmm ci wàll yépp bi ak bitti adduna bari nay pakk lool waaye ku sax dàkk bu nu saxee dàkk ci li ñu fi sëriñ bàyyil warat noo tiit dara dañ koy tënk rek ci mu sax dàkk ci wétal yàlla sax dàkk ci doyloo sëriñ bi diggam ak diggam boromam te nekk ci li mu nekk loo bu nu ko defee duñ waruñu tiit dara duñ jaxle ci dara duñ ragal dara te dara mu du man ci woon ci noonu dara kon loolu mooy li ci am solo góor góorgóorlu bu baax ci nekk li sëñ nekk ci nekk sëñ nekk ci li sëñ bi bëgg ci noonu nekk ci li mu nekk loo te wéetal wéetal suñu borom gën a wéet waxtu wu ne ci biir bitim yi gën di wéetal suñu ci lépp di gën di doyloo sëriñ bi itam nag di gëm borom ci lépp loolu mooy li nga xam ne eh, buñ ci buñ ci góor buñ ci gën a góorgóorlu rek gën a yëg suñu bopp ci gën a moom suñu bopp ci tënki-tënki adduna ak gàllankoori adduna lu luñ ci gën nekk rek di gën a moom suñu bopp ci ci wàllu googu tënki-tënki adduna ak gàllankoori adduna te bari na lool waaye loolu rek moo ñu ci mën a musal kon bu nekkee ci loolu loolu te li ñuy indil mooy taxi àdduna ak taxi àllaaxira rek muccu àdduna muccu àllaaxira defaru àdduna defaru àllaaxira loolu rek la mënu moo ci moo ci diggal kon noo ngi sant ñëpp di baalu ak ñëpp di dénkaane ñun ñëpp. ñu balante àq bu xas wajhi laay amee jubbu yàlla bu ame dootoo tal dara loolu yàlla ak alaaxira ku tëlul ku tël ku tëlul dara nag loolu yàlla ak alaaxira sa lépp ak yiw la ndax dootoo xëccoo dootoo xëccoo ci dara àdduna dootoo jëmee ci sama moroom jaam jenn yéene ji ñaaw waxuma laa jafe ga loolu doon rek la demee góor góor bu baax a baax a baax a baax a baax ci gën a sax dàkk ci wéetal yàlla gën a sax dàkk ci jaamu yàlla loolu mooy ci la suñu lépp nag suñu ci yiw adduna suñu yiw adduna ak si yiw alaxira suñu yiw ngi ci loolu kon jërë ngeen jëf góor góorgóorlu bu baax a baax a baax te gannaaw ban sante cant goo xam ne yimul fenn ndax ban suñu borom booleeg sëñ bi rek booba la suñu ajo mel na ni suñu aj booba la ajo fajo ndax Euh, sëñ bi doy nañu ci lépp doy nañu ci àdduna doy nañu ci àllaaxira nit